الحمد لله الكريم ذي المنن على استقرار بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن بي نفى قني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزم بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قد عن قد تبعا على الذي من بالمراد اقتدى بسر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم يا عنوان شكرك لا أليم ومنذ جلبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك خسرت لما لم أجد سرواك فجدت اليوم بخير منني وقلتني إلى ارتفاع السنن من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداء والإقراء أزهد في التاريخ والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال لهدى المعلوم فقلت ذا سمع وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معاه ليسمعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غم تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسور نائم تقول يا مالك يا مالك الأنام أم الهوى يقلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكى

loolu daal laa bëggoon a wax yow sant nga nu ko yàlla dogal bi koy sant nga roof nu lu tax nu man ko def def nañu ko sant sëñ Touba nag lu ne da ciy dugg taalibe bi dugg si nañu ci mbokk yi ñeneen ñi dugg si nañ ci ba nga xam ne bu doon lu ma téeñu woon dafa woyof kon maa ngi sant le taalibe yi yëpp eh, Serigne Touba ci yow. yow ko jox de man de seetlu ma dal ci man señ bi rek lay wut waaw xooluma lu sëñ bi lu sëñ bi ñëw doo ma ci soxla waaw te doy nga ma doy goo xam ne nii wóor na ma ne mënuma dëgg dëgg li ne ci sama xol ma génne ko waw dama koy bàyyi rek ak Serigne Touba ak Serigne Touba mi la mi la mi la bàyyi daal kii daal moom njur luñ teg fële aw semmiñ ñëw ci gàcceguñ ko ci bant bi sax ba def ko semmiñ ñu def ko ci di ko dóor defuma dara lépp yow la caabi caabi yaa ngi maam mu ne mu ñaan liggéey bi ngërëmal sëñ bi liggéey ngërëm bu mu am rek mu ne képp mi ngi ñaan mi ngi ñaan ci barke sëriñ mi képp ku liggéeyal sëriñ bi ngërëm lu mu a am mi ngi ñaan ci barke sëriñ Tuubaa yàlla defal la ko amiin en doy na sëkk amatuñu bu ñu faatu woon tey it baax yàlla na suñu borom bàyyi nag ndax xam nañ ne mu ne te yéene yi yéene ji rëy na lool soriwul fañ ko bëggee. mu ne loolu rek la soxla wuñ dara sëriñ bi rek lañ soxla. mu ne dañu ànd dem sëriñ bi rek. mu ne jërëjëf Mbañ. mu ne jërëjëf it rek lañ mën a wax. mu ne lépp def nga ko. mu ne jëf nga ko wax nga ko. mu bi rek. mu ne lépp luy maye sëriñ bi ne wax nga ko def nga ko mu ne jërëjëf Mbacke. barakallah bu yomal nga bu doon sedd nii bu ñu jàppoon ni lay sedd rek alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. ñu fekk ci tool yi ñu fekk bi waaw mu ne Cheikh Modou Fadal mii fa tabaarakallaa mu ne lii lépp moo ñu ko may moo njëkkee ndigal li moo njëkk am ndigal li te boobu yàgg na mu ne fekk nañ ko ba tàyyi moom képp mu nekk fi mu tax taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu ne kon nag mu ne ñu ngi sant Serigne Fall bu baax baax di ko gërëm. mu ne di ko feddali gi ñu bok mu ne fas yéene koo gën dëgëral bu baax. fassiyene ko gëna sam bu baax. mu ne ko and mom itam. te diko ñaanal. mu ne ndigal limu mu ba ñëw fi nek fi lim fi nek mu ne yàlla defal ko ci barkeb sëriñ bi moo xam ni mu ko bëggee waaye yàlla moo ko gën a xam boppam ñoo ngi koy ñaan mu defal ko kon nam ko bëgge ba taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu taxaw ko fi nekkee ko fi ba njaboot sëñ Tuubaa gépp di ko fekk mu nekk fi rek mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu koy sante yàlla di ko sant Serigne Touba di ko sant di ko sant Serigne Mourtala mi ko joxoon ndigal li di ko sant di ko gërëm fa tabaarakallaa jërëjëf Mbacke mu ne ak yegg ak yeggale rek Mbacke jërëjëf Mbacke mu ne fi nekkal sëriñ bi nekkal ko fi ñun jërëjëf Mbacke yegg ak yegg rek. sëñ Mor la. ah xanaa ba sant rek. waaw noonu na ñëpp tàllal seen loxo amin jamiana bi lutfika aljamil wa kullana xuli najatin wa falaax wa waffiqanna li sawaabin wa salaax wa tuxrina bi fi'li ma ahbabta wa takfina an fi'li ma abgadta wa la takun mubtaliyan minna ahad dahran bima laysa yutiqu ya samad وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاهز اليوم وجاه مولد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استفاه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركة مقتديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه من دعوى ودفع عنا كذبا والأهوى ودفنا الهوى وما لا يعنيه وبك دربا أغننا يا مغني الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس المبلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه تغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول